yow dem yow gis nga Chris la mayati ah boy Chris vedette la boy gis ma Mansour way ma ngay sibile ah Mansour fan su Chris la boy day woné ni mo bot équipe am nak ah mais nak na la xamal lén dé sampé naa bi fii lay commencé di jaar di tak dé bu la fi Messi féké nga xam lépp dëgg la boy yow ligue des champions bi boy Lionel Messi lañ wax boy lépp lo gis Lionel da ci ba ko momat nga na Real moko momat togal fofu ñewal i vie hmm wala boy bi ban boy ii kii bàyyi ko kii bagage jàmbur la. waay bàyyi ma nga naan bagage jàmbur galaay star koy jël nga naan man bagage jàmbur. naa la xamal lenn de borom soriwul ci géej gi de. ana jàmbur laa la yëfu jàmbur daal la bàyyi fa nag la tudd. Sones naa def. kii ba ko gisee nga xam ne yëfu muy. Sones. eh galaay foo nga amal foo jëm may jël kii nga amaale. pardon. xalam jigéen yaa ngi bëgg a ñàkk chance de booy sa ginnaaw de sones naa def miss pardon ah waa coono jub léegi même madd su ma doon madd yaa may sàq mi de ndeysaan tis Galaye Sarr topp sa ginnaaw de doo wax ak moom ah may sa madd bu baax parce que la ñamaanal naxu la yaa ko defee nii maa la wax loolu ah cëm ndeysaan waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaye àdduna daal lépp ni xool lépp nii rek lay demee de ndeysaan ay waa jile waaye soxna si waaw waxat ci kii yow di mu fee la ma topp di ma piis rek mais sa waay yow sànq ba léegi maa ngi lay gis ngay piis mooy la moo tax nga topp di ma piis non da ngaa juum de juumul ah. fenn kon lay def ah. fii kay maa ngi la gis nga koy topp di ko piis non damaa tàmm dox di piis rek sa waay non da ngay fenn fenn fenn aja doxal doxal eh kaay kaay. da nga tàmm dox di piis doxal ak moom.